wàccuwaayam di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo féetewoo ci daara ji yépp ak mbooleem bokki taalibe yi nga xam ne fekk nañu leen ci béréb bi ak kilifa yi fi nekk yépp di sant yàlla ci jataay bii nga xam ne jataayu alxuraan la muy jataay boo xam ne kon mooy jataay bi gën a mag ngir li ñu fiy def muy jàng ak jàngale ak yar te sëriñ bi am ci taxawaay bu rafet muy sëriñ Maam Baara am ci yitte ju rëy di def loo xam ne it mooy bëggug sëriñ bi rawatina ci dëkk bi di tuubaa xam ne sëriñ bi dafa jàppe sax gémmiñ loolu muy ñàkk fee nekk nekkal boppam di jàng ak a jàngale kon loolu gémmiñ la ko jàppe ci boppam moom sëriñ bi kon ki bokk ci moom taxawe noonu amul benn tool bu ñuy bayal sëriñ Tuubaa bu ko gënal tool bii di toolu alxuraan ndax mooy toolub sëñ bi sëñ Tuubaa waxul ne lenn mooy ab toolam waaye dane alxuraanul karim mooy ab toolam kon yitte jim ko joxoon taxoon na ba mu tànn ñoo xam ne ñii dañu ko koy bindal ñii di ko jàng mu warlu leen ku koy bindal ku nekk mooy yor sab dund boo ko dee bindalit boo léegi di ko liggéeyal mu tàggatal la mbooloo moo xam ne dañuy liggéey di la ko jox kenn xamul ci moom it lees ko mas a jox mu jël ko lu dul alxuraanul karim mboolem awraad yi nga xam ne suyuuxu tarqiya yépp amee woon nañu ko it jëloon na ko moo xam muy alqadiriya wala muy asaadaliya walla muy yi waaye dafa xëy jot ndigal ci boroomam mu ne ko bàyyil wirdi yépp te jàpp alxuraanul karim nga xam ne ba mu jógee doxin wa rek saarifan himmati li rabbi taala jëm sopp yitteem jëme ko ci sunu borom waaye ci lan la jàppoon mu nekk ab yóbbalam maasikan bil kitaabi maska dariri bi yaddi alqaaidi albasiri almuayin nga xam ne ni silmaxa di def jël ab tuumam jox ko njàccaar mu di ko wommat noonu la sëñ Tuubaa def mooy wommatu ci alxuraan ni silmaxa di wommatoo ci ginnaaw njàccaar mu nekk wirdam ay guddeem ak i bëccëgam ba alxuraan tànn dëkk ak moom alxuraan tànn ñaan ngir bokk ak moom nekk ba faw nga xam ne raamal kitaabu kawnahu maay bila tafarruqin wa umri qad qabila xam ne kon na waxe woon fee ne raama rasulullahi min ilahi noonu la waxit na ni la alxuraan sàkkoo ma nekk nekk man ba faw ca la dëkkaale ak boromam rek kitaabu rabbi lii wa kuntu lahu wa sakantu kon loolu wone na melo woowu mu teg alxuraan ku mas di bind kaamil di ko wecciku ba ñëw ci sëriñ bi bisub keroog danga riis ndax bu njëkk daanan bindub kaamil jaayee ko ñetti dërëm ndax sëñ Tuubaa bind na kaamil boo xam ne ci loxo boppam la ko bind ànd ak ma sàmba Diop Sam ak maam na borom Daarul Muxti ba demee ci nubsatu taarix yi da nga ci fekk mu wër Kajoor ak Bawal da jaay téere bi ngir mën a fay borom ñetti dërëm daana am ñu góor góorlu jaay ba ba mën a jënd ab kaamil ñett fanweer ci boobu jamono waaye moom dañ koo xàmmee woon ci ne sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na am na benn bis boo xam ne juróom-ñetti téeméeri kaamil la jënd ci benn bis moom sëñ Touba nga xam ne naar yi am na ci ñooñ bu ñu mësaa bind alxuraan ñoom sëñ Touba rek lañ koy sawar a yët sëñ Touba xàmmeewul jënd ab kaamil ci 10 heures 11 jot kooka indiwaat déedéet moom waxtu wu nekk rek. kaamil yi day tegaloo ci këram te loolu ku ñu wax euh, defe naa Mouhamadou Al Hassani ba muy wax ne man de faalewuma ku nay ba bañ a jënd kaamil bañ maa jox njëgu kaamil fekk sëñ Tuubaa ngi fi rek comme neex yow nga bañ a jënd waaye yow yaa xam maa in ubaali ida ma danna du maali anni bi ajrati xalti mashabil xaali ma daama xawsul wara xayyan yubajjiruhu حقا ويبسل فيه غالي المال في كل يوم توفي ألف منزله تتلى بأمثالها من بعد أمثال والله ما ساده إلا بها xam ne moom alxuraan rek mooy yitteem mu ne mu ne téere bu ci nekk bu koy jël na muy jëlee bu njëkk baag na muy jëlee bu mujj ba moo yem ci moom waaye nag ba di wax ba muy jeexal dafa wax ne tilkal karaamat lam yassar siwaahu biha fi laalamina min aqtaabin wa abdaalin min abdaalin wa aqtaab nga xam ne amul karaama ji sëñ Tuubaa am ci alxuraan nee na aqtaab yi ak abdaal yi kenn mës am karaama ñu kon nag bu sëñ bi nekkee sëtub sëriñ bi di sëñ Baara ne ci dëkk bi jël waxtoom yépp jëme ko ci jàng ak jàngale ak yar nit ñi kon moom mu ngi ci bëgguk maamam sëñ bi nag dafa waxoon ne loo xam ne mat naa bàyyi xel ba lii mu nekk ñu xam ne mooy dëkk gis naa ko léegi ci wax ju sëñ Modou Xëri bu sa doon wax sëñ Touba doon ko ko waxal boppam ca biir wax ja wax na ko ne am na ñoo xam ne dañ nee neenan ci man lañ bokk ñu ngi may tuddoo waaye ñu bokk di dund ci àdduna dong lañ séq maa ngi ñoom waaye séquñu dara laalewuñ ci dara te leen yor saa yu seen adduna jeexee mu jeex wala yaadu billah kon waxoon na it ne nga xam ne Cheikh Abdou Karim Touré la ko waxoon na ko sëpp na adduna gis ko mu des tuut waaye lu tuut di lu muy tuut tuut dafa fees dell ak i nëx-nëx ñaar laa ca gis nag muy tasyaxul fujjaari ila naar wa salabul imaani qabla al gëm gu dañ rikki gëm bala ngaa faatu ak gunge yéefar jëm sawara sëñ Tuubaa nee na loolu la seddu ci àdduna daal di wax na nag la ma ca gën a métti nag mooy dama ñooñee di gunge ñooñe dama caa séet ñu ma ca foogutoon kon sëñ bi noo ngi lay sant bu wax Mbakke ñi yàlla may tawféex yi waxuma seen doom mokkal alxuraan waaye ginnaaw dongo bi bu tegee alliwa ji ci ay wóomam teg ko ci ay poojam wax ba siit miim ñu far turu ndayam ak turu baayam ak turu moom xale bi ci sawara loolu loolu kenn amul payam ci àdduna ndax yaakaar naa luy tax a mucc ëllëg ah mat naa te loolu sëñ Tuubaa ko wax fa hay suma yu bas bi lu sabi fii maktabati yokkutubalu alli walideyi wala man yu allima barawati min ali fa taalamu nga xam ne kon ki koy jàngal ak ndeyam ak baayam ak xale bi jàng mu ne baasin miim rek waxul mokkalub kaamil de waaye baasin miim rek ñu far turu ndeyam furu turu ci sawar kon ku yàlla dimbali nga am doom ju nekk ci daara di jàng war nga sant yàlla bu baax ba ca toppit béréb bi nuy jànge mbaarum alxuraan moo gënal yàlla béréb yi ci kaw suuf yëpp noonu ko salaa salaam waxee ne wa ma fil ardi min boqaat ladal masajid ahabu ilallahi min boqaat la fiha alkitab ba ci jàkka yi béréb yi nuy jàngee alxuraan moo moo moo ko gënal kon te ndaw ñi nekk ci daara ji di jàng bu mooy yàlla yi bare ak bakkaar yi ba suñ borom mer war a wàcce mbugalam ñaari baat rek lay déglu muy gone yi ngunum ngunum yi ci daara yi ak noddukat yi moo tax yonent bi wax na ndaw ñi ci daara ji ñooy ramm mag ñu saggan ni borom ayib yi asigaar fil makatib shufaaul kibaar dawil maayib kon alxuraan du caaxaan sëñ bi nag noo lay sant bu baax euh, sëñ Mouhamadul maxtaar mi dama ko tuddee sama wasila Cheikh Mouhamadul Makhtar sëñ bee ma waxoon naa ko ko tudde mu jël ko jébbalal ko boppam doom moom joo xam ne ñoo maase keroog bi muy ñëw ci kër gi dafa àndaale doomam na mën a jébbalu ci kii ma jébbal ko ko mu tàmbali di jàng alxuraan ma joxoon ko ku ñuy wax sëriñ Xalil mbakki moom sëriñ Moustapha Absa mu nekk ca daara ja di jàng di góorul ba bind kaamil sëñ Maam Baara mii yàlla boole nu ma xool pas-pasam ak pësséefam bi sëñ Maxtaar nekkee ci daara ji ma gis mu tàmbali dugal yu ci bokk dugal gi mooy léegi-léegi mu ñëw kër ga bëgg faa yàgg léegi-léegi mu ñëw kër ga naqaree delloo te xawuma ko ci woon ma ne ko kaay am naa béréb boo xam ne nii de saa bopp laa ca gën a wóolu sax maanaam li ma wax sëñ bi ma ne ko mu fanaan sa kër moo ma gënal fanaan saa kër ma joxuma la ko ngir day dong bu ñëw di jàng si laa la waxoon joxuma la ko it ngir day nàngam dama la ko jox ngir lii na ci yow nga defal ko ci dara mu nekk moo tax mu nekk joxoog mutlax bu ma ci kenn woo ngir moom nee naa la fii démb bu faatu woon nga yóbbu ko ci armée lee na ma waxtu sàngam lañ koy denc damay waaj rek ñëw ci denc loolu mooy li li dëggu ci man mooy li wér ci man sant nañ yàlla bu baax nag ndax ku sañoon boo amee njaboot ñu sàmmal la ko ñu jox la nit nga taxawu ko ci diir bu néew tariloo ko alxuraan ah sëñ bi sant nañ la bu baax a baax ndax yitte ju rëy rëy la laaj te keroog bi ma nekkoo ko danaa ko indi dana mën a ñëw yow sa yoon nekku na ñëw wax bis bi muy ñëw sax man naam doonutoon bis bu ñu war a inscrire wu waaye ba ma ko ko waxee rek te moom mii keroog bi mu nekkee di coow ak magam ma ne ko kaay dem léegi li ma bëgg mooy nga dem ca daara ja bi ma la wooyee ba nga ne mën ñëw dana ma dana ma papa jërëjëf yaa ngi may door a defal li ma bëgg moo tax ma ne la bu mu wootee téléphone bu ko kenn wooteel téléphone lu mu bëgg rek yow na la ko wax koo ma booleel lu ma wax ma def ko ndax dama bëggul mu jéem a am relation ak dara kenn moom moom dama bëgg mu doon sëriñub daara soxlawuma mu nee naa la bëgguma mu doon lenn bëgguma mu jëm ci dara lu ne ci loolu ndax du ma jël sama àdduna investir ko ci ay état ki wata dee fii bàyyi woo fi doom ju lay ñaanal ñu doon say soxna dëkk say kër nga nekk yow mal xiyaama ki duma duma ko noonu moom damay investir lu ma fi lijjanti ba noppi lu waaye di doon na door koo doon daara ak jàngale sa njaboot tege ci yoon ku bind ay kaamil mokkal alxuraan doon sama xarit ku mel ne ma xam ne yàlla la ko nattoo waaye ki koom am nag moo may gënal surtout ma tudde ko sama sëriñ léegi la ma sëñ sii Sidi Mbàkke moom suñu Abdou Maxtaar di wax ne bu soliwutoon day moom mooy wàññi ku ñëw teewee si ko fekkee si jotaay noo ngi lay sant ci sa taxawaay sëñ Maam wax naa ko ba tey Sénégal dafa neex naqaree waxee ndax boo ne diw baax ñu ne diw lay léebu léebu kenn waaye ki nga xam ki nga xam moom nga mën a wax ak baaxam vraiment li nga taxawu ci réew mi taxaw ko ci dëkk bi taxaw ko feneen wax naa ne bu yàggul ne naa ko fii jël na oto jox ko imaam sëñ Baara bu Bousso wax ne ki ne ci jumaa ji di di jiite kat warut a war wata budul naka sa noonu jëlub kaat kaatam joxe sëñ bi loolu moom businessu ci sëñ Touba lijjantiwul ci sëñ Touba ci sëñ Touba ju wóor la nekk moom sëñ Maam Baara mi te ku ñëw xool béréb bii xool jataay bi xool fi mu jaar da nga xam ne li ñuy wax ne man sabara wata an naa naa la maata mën naa ku muñ def ndànk danga am la nga bëgg kon li nga bëgg ci sa maam sëñ Touba taxawul ko ko ci dëkkam bi yàlla na nga ko am ni nga ko bëggee ni sa maam sëñ Touba bëgg ku ni mel mu bokk ci set yi nga xam ne duru yetan tu jaddidu da nga cay bokk ëllëg bokk ca ña koy taxawule noo ngi am mbégte ci yow bu baax waxuma jàng ak jàngale ji waaye jikko yaaram ji nekkaat ci yow rek muy bëgg sëñ beeg woyof ñun ci lañ la gën a jàppe kon nag noo ngi leen di sant noo ngi ñaanal xale yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji te mokkalagum yàlla yàlla ubbi seen xol leeral ko bañ mokkal alxuraanul karim ñi yàlla dogal ñu mokkal noo ngi ñaan yàlla suñu borom enrichiré ko seen i xol mu des ci seen bunti xam-xam ubbeeku seen i jur dem ba fekk seen seen njariñ waaye nañ jël xale yi jox leen yàlla nañ jox leen yàlla doomu aadama bu juddoo buñ koy tudd kenn jëngut anglais ci nopp yi kenn jëngu ci français noddu liqaam la ñuy def booy jàngit iqra bismi rabbika lañ lañ wax boo jàngee nag sa xam-xamu diine ba noppi beneen xam-xam boo bëgg a jàng dana yomb ci yow ndax fii yoon bi tollu léegi dafa laaj xam-xam saay-saay si ne ci àll bi laqatu di song yoon wi faw ñu yar sunu ndaw ñi ñu contrecarrer leen bu ñu ko deful nit dana jóge fii di lakk ay alors ak meeke ici nga di ko xool doo xam noo koy contrôler wala nga ñëw fii di wane leneen kon nañ yar gone yi jàngal leen waaye jël sa doom mënu laa joxe lu dépense xam nga ne gone gu toll ci 10 ans mënut a yor kër. yow mënoo koo wut dépasse bu mat sa doom nga bëgg koo wut loolu dépasse joxe woo ko mu jàng yaa ngi tardé sa doom gone yi it buñ leen yóbboo ci daara lañ leen bàyyi gis nga ab der boo ko defee ci ndox xooj ko ci luxule ji ba mu yàgg ca tuuti nga gaaw génne ko te fekk ya nam ca war a mel melu ci day koto mu du man dara waaye boo ko ca bàyyee ba mu mel ñu foofu ko defar ko ba mu doon kiwiir man naw dàll man mbaxana man mbubb tërbiya gu yëggut baaxut fi ne loo gis ci problème ci àdduna tërbiya gu yëggutu ko yóbbu demoon naa daara jële wax jëlee foofu fit mais du fa jële xam-xam du fa jële teggin kon nañ bàyyi xale yi ñu jàng ndax mënoo doom ji lu mu lay jariñ jàngal ko moo jiit ndax al ilmu xayru qawaam mas na benn waaye mas na ma ko wax ci Madrid Espagne ñu daje mu ne ma man de maa ngi fii di daw a ñëw rek mais yow daa mel ni affaire yi lijjanti ko na waaye man ba ñuy jàng damaa dawoon ma ne ko ah man ne maa nga woon si njàng may kër kër yi rek damaa xamul nag boo ne ci xam-xam te teg ko ci yoon ku la jiitu da nga ko dab te xam-xam mooy lépp ndax lu dul tedd ngay xam-xam nit mën na ko am fi ne am na saay-saay soo xam ne dañuy taxaw di tuur ndox di soli kilote di naan sangara mais bu dee alal oto yi nii war suñ kilifa yi sax mënunoo war wata yooyu yu luxe la ñuy yor am na ci ñoo xam ne montar bi ñuy takk cent mille millions da koy jar ndax matériel yi ki bagage daa bokkul dañ nit ñi dañoo xamewut matériel ak i bagage ay xojung xojung mën nga koo jal ba noppi du jar dix mille mais nit mën na takk montaru cent mille ay valeur qualité quantité bokkul nit day fexe ba def ay valeur yu baax ci doomam kon nañ ci góorgóorlu nun te jàpp ci daara yi te taxawu ko te xam ne taxawu ko ak jàpp ci moo nu war te góor góorgóorlu ci bañ rek ne sëñ baa nga ca nangam ak nangam ku ne na nga ko mën a taxawee dee ko taxaw sëñ bi noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm di balu ñëpp àq asalaamaaleykum wa rahmatullah